seraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa combat royal ba diggante Modou Lo ak Ama Baldé bile combat le technicien Max Mbergane moo xëy décortiquer wax ca xalaatam ka ëpp atu ci bile combat ci wàllu xeex ci mystique ci technique ak staff ak force yépp loolee Max Mbergane ñëw na ca diggante Modou Lo ak Ama képp ku jàppoon ne du combat da ngaa laajul Max Mbergane bile combat da caa wax atu ñaari mbëri ku ci nekk la nga mëne la nga aay lépp wax na ko bu dee ci wàllu xeex la ne Modou Lo est un amul kenn ku nekk ci làmb ji ku ëmpleeg mën a xeexam bu dee Ama Baldé mën na ci dara ndax mettre na kaaw Malick kon wàllu xeex Modou Lo bu ci amee xam-xam it Ama Baldé am na ci ay ngelaju bu dee ci wàllu mystique lam ca xamle moom Max Bergan mooy ils sont trop mystique Modou Lo ak Ama Baldé seen arsenal mystique bëriwut ay mbër yu ko àttan ci wàllu mystique ñoom ñaar dañ ciy peser poids bu am solo bu ci wàllu technique it la mu xamle mooy moo Lo est très technique mais Ama est incalculable Modou Lo xereñteef gi nekk ci moom foo ko natt weesu na ko li ni moo tax ñu koy dippee xarañ loo waaye Ama Baldé ci ne mënoo koo calculer lépp loo jàpp ne mënu ko ci bu dee ci wàllu staff le roi des na ci staff bu bien moom la amee bu dee sëll bu ndaw lam fa xamle mooy ama à une ci wàllu force la Max Mbergane xamle mooy Modou Lo à intérieure li ñuy faral di wax naa ni jëmm ji toll doole ji ëpp na ko bu dee Ama Baldé mu ne dafa liggéey physique la desonte Max Mbergane dugg ca mooy diggante Modou Lo ak kan moo ca mën sa morom foofee lam fa xamle mooy ay ndaanaan la ñoom ñaar que le meilleur gagne que it la waxaat daanee ambulance bu bëgg sa waajur le 8 janvier dafa bëggoon a ci kaw caatu booy bambara waaye le 15 juin caat da koo ne ko fii xale du fi naanee ñeex bu dee fëgala moom it ci victoire la jógee woon dal cib defet jokkeel la daan le 12 fas yéene woon a ci kaw double moteur waaye le 7 juillet ci arène nationale double moteur da koo ne ko gone laa gudul baal mag foofee combat ba boole mooy diggante armée ak fëgala ku ñuy wax ci huis clos foofee la waxee perpétuité bi ñu essayé woon te sotti ci la dellu siwaat ci ni mu gën yaatoo moom la mu xamle mooy ak TNT bi leen te soxla lépp mën nañ ko caa am ci wàllu TNT beeg perpétuité bi moom gisu ci benn jafe-jafe ba ñu ko laajee ci tafaajo ma doon organiser combat royal ba diggante Eumeu Sène ak Modou Lo la mu xamle mooy bi promoteur amutoon benn problème ci TNT pay per bi moom da ko utiliser woon pour a tax lu lamb taxaw temm ngir saafara ay jafe-jafe mag jàngoro mooy sunu papa Mbaye Guèye gannaaw ba mu tëddee feebar ba léegi mbooleem ku nekk ci lamb yaa ngi koy ñaanal tan ñeneen ñi ami mooy ñu ngi koy jàppale gis nañ geste bu rafet bi Balla Gaye 2 defoon keroog bi mu jotee avance am ba mu paree ca loola moom la lion de am na beneen doomu Guédiawaye bu taxawaat Père Mbaye Guèye Malick Gakou la ñu koy wax ni keroog mu ngi këram ngir jàppale a fës ci etu yéenekaay bi li nekk yow sa yaram ak